au nom de ceux qui sont dans l'espoir. Nous tenons à vous remercier. Vous avez contribué. Merci. Voilà. Peut-être, euh, Saïd, oui. tu es chez toi ici, comme on t'a toujours dit, particulièrement à la résidence de ton ami et frère Ousmane. Au moment, Momi, c'est le principal opposant au Comores. dont, dont, le président est ici d'ailleurs euh, au Sénégal depuis quelques jours. Donc c'est l'homme politique le plus populaire là-bas. Donc comme on a fait, il a eu la grâce de poser le pied dans la maison. On peut prier pour lui, Nikoubala. Il, il se donne beaucoup pour la cause de Ousmane, à travers l'Afrique, le monde quoi. am nañu yeneen confrère comme ni la ko saway waxee nekk bitim réew li mu gaaw li moo tax mais ñoom soo gaawee joxe leen xam nga daal leen rek lañ lay ñaan mooy parce que fi nga toll yow euh, man man nga am nga agrément ñaan daal ñoo xam nga ñun xam nañu ko bu ñu fàtte ci ñaan rek dégg nga incha allah yow tam ñu ngi lay ñaan xolu moom nga continuer ni Amin. dëgg moom moo ko mooy dëgg waaw ku nekk si dëgg dina fekk dina dina leer dina dina dimbali waaw man mii waa Jure mooy maa def loolu dina ñaan ñu fekkoon bu fekkoon waa Jure moom wala ñu dund tam moo ko fekkee waaye ko ci ci àndal leen sant na ko alal leen bari xam bu la neex waaw yàlla ngeen defal yàlla moo leen tey itam yàlla def na loolu am lu leen neex waaw ngeen xam lu leen neex ñu nekk ñu am lu ñu neex waaw loolu moom laa bëgg yàlla baax na yàlla moom pare moom. man dama bëggoon sax joxe juste parce que wala que tey yàlla dafa ma wax parce que nii ñoo samay kii mais yàlla dafa def ma jege trop euh, aussi ñoom it aussi jege ko trop ñu xam ci moom lu bari. Ousmane bi ñu ko rajee deux mille dafa ñëw mu ne ma ah petit frère man de rajo nañu ma ne ko dégg naa ko fekk mu fekk ma tribunal ci mu ne ma rajo nañ ma euh, yàlla baax na ko yàlla mu ne mu ne ma ma ne ko ma ne am nga xaalis ma ne ma sama compte bi defe ma jël xaalis bi ko def mu sànni ko ci suuf boobu mu ngi am compte SGBS e mu ma 85 000 moo ci mu nekk inspecteur principal des impôts et il a été radié alors qu'il dans son pour payer une somme de 85 000 francs dans compte loolu à la après cela euh, j'ai de mon portefeuille de l'argent pour le lui donner mais il a jeté l'argent au sol en disant qu'il n'a la pas J'ai essayé de le forcer à prendre ça, mais il a pris la, la clé des champs. Après cela, il a été victime de beaucoup d'injustices. Parce que Ousmane a son style. C'est un révolutionnaire. Et puis, euh, c'est un homme de principe. C'est un homme qui est attaché à un certain nombre de valeurs. Il faut gëm ay valeurs ba pare dafa gëm yàlla il y a deux choses que Ousmane je ne peux pas dire qu'il les aborde mais il n'est pas il n'est ni proche de l'argent pense certains disons pensent qu'il a des ambitions démesurées en termes de conquête de pouvoir mais pour qui connaît Ousmane Sonko Ousmane n'est pas le profil type à vouloir par tous les moyens accéder au pouvoir. Il a un détachement très marqué vis à de l'argent. Je vous donne un petit exemple. C'est pourquoi il est difficile de, se battre contre nous. C'est parce qu'il peut se battre avec des gens avec qui il ne partage pas les mêmes idéaux, mais également les mêmes ou les mêmes objectifs. quand on se bat contre quelqu'un qui veut accéder au pouvoir systématiquement alors que vous, par le pouvoir, il est difficile de combattre celui-là qui est désintéressé par le pouvoir. Ousmane Sonko est comme ça. dafa am ñaari yëf yoo xam ni moom intéressé wu ko muy pouvoir ak alal keroog dama fa dem ma jël sama kalpe ba ma jëlee sama kalpe moom parce que su ma toogee comme fii laa koy def ci ginnaaw daf may gêner. du ma am confort ma jël carte bi teg ko mu ne ma ah sa waay yow sa waay yow ya da nga yàgg yow ku yàgg ma ko lu tax mu ne ma parce que man calpe sa fait man ça des années xaw ma calpe musuma pratiquement man du ma utiliser calpe ma ne ko mais yow dans ce cas comment est-ce que tu fais pour mu ne yàlla rek donc ñi koy xeex xamuñu ko Ousmane xol bi dafa rafet dama koy jiiñ ci seen tuba kenn gënu ko xol man de tuuti naa trop ci conseil président Macky Sall parce que xale laa ndaw laa rek man ñoom ñëpp peut-être ñooy sama kii mais li ma mën a wax mooy bu xamoon Ousmane Sonko du xeex ak moom parce que Ousmane moo gën ci moom pour ñi xam Ousmane Sonko président nag mooy kilifa ji waaye xamul Ousmane parce que bu ko xamoon. toogal moom rek dina xam kan mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñi koy xeex xamuñu ko dañ ko sori ceux qui combattent Ousmane Sonko sont loin de lui ne le connaissent pas mais il suffit d'être en contact avec Ousmane Sonko pour savoir quel est le profil de l'homme c'est un pardonneur c'est quelqu'un qui a un cœur pur qui est un, un homme dépouillé un homme cache comme on dit e c'est ça, du pouvoir, un homme détaché de l'argent. Ceux qui pensent que Ousmane Sonko a une obsession pour le pouvoir peuvent déposer leur clip et leur plan. Parce que c'est pas ça le personnage d'Ousmane Sonko. Il a eu un détachement véritable vis-à-vis du pouvoir. Alors, comment se battre contre alors qu'il vous que moi, le pouvoir, l'accession à la magistrature suprême, que j'y ou non, ça m'est totalement égal. il se combat, il se bat pour les principes et il se bat pour les Sénégalais qui sont Et c'est important de le dire. Parce qu'il n'a pas une obsession folle pour le pouvoir. C'est pas ça le personnage d'Ousmane Senghor. Ousmane est quelqu'un de généreux. Paul dit, Il suffit de lui parler pour savoir qu'il y a peut-être une sorte de dichotomie entre Ousmane Sonko politicien et Ousmane Sonko père de famille. c'est quelqu'un qui est tellement simple quand il me voit ah mais na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm jàmm rek ni laa c'est comme ça qu'il parle de façon à ce que vous ne pouvez même pas imaginer que c'est le même homme charismatique qui explose tous les records dans le continent africain c'est ça le personnage d'Ousmane Sonko un bon père de famille quelqu'un qui tient à sa famille qui tient à ses épouses et à ses enfants un homme affable un homme sans histoire. C'est ça le véritable personnage de M. Ousmane Sonko. Le charisme est inné. Et c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est ça sa philosophie. Un homme ne peut pas donner le pouvoir et un homme ne peut pas empêcher par un autre homme d'accéder au pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et c'est ce à quoi lui, Ousmane Sonko, il donne. C'est ça sa philosophie. Pour ceux qui le connaissent, Ousmane Sonko n'est pas un C'est la première fois que je fais un témoignage sur Ousmane Sonko, parce que je suis avec sa famille, je suis avec sa maman, qui, ne l'oublions pas, est enseignante. C'est pourquoi je m'exprime en langue française. Un homme humble, il est humble, il écoute tout le monde. Il n'est pas têtu, contrairement à ce que l'on il est très souvent mis en, mis en, minorité, mis en minorité, Quand il met sur la table, dit. la vérité, il est, il, et il vous dit que vous m'avez la et départ était erronée. C'est ça aussi Ousmane Sonko. C'est un homme qui aime son pays. Personne aussi dans ce pays n'a le monopole de la, du patriotisme ou de l'amour pour la patrie. Même ses pourfendeurs et ses détracteurs n'aiment pas le pays plus que lui. Je pour l'avoir côtoyé, pour l'avoir connu depuis à peu près une vingtaine d'années, que Ousmane Sonko est un homme qui, plus que quiconque, aime son je fais un petit glissement. C'est pas à l'ordre du jour. Mais, mais, mais, mais je pense que ce pays a besoin de paix. Ce pays a besoin également de calme et de stabilité. Le seul message que l'on puisse envoyer à nos interlocuteurs, parce que je vois que je suis filmé depuis, c'est que même le pourvoi à la cassation qu'ils ont introduit n'est pas nécessaire à mon avis. La démocratie a soufflé à partir d'hier. Un vent, un nouveau vent a soufflé. Je pense qu'il est bon qu'on accompagne ce processus pour apaiser ce pays-là. Et que Dieu donne le pouvoir à celui-là qui le plus aime Et je suis persuadé que Ousmane Sonko aime son pays plus que tout le monde. loolu lañ amoon lu ñuy ci wolof. man maa ngi nuyu juste euh, euh, def benn témoignage comme ça bon malgré aussi son adversité avec ceux qui sont au pouvoir actuellement nii. bon man je le fréquente parce que on s'est connu depuis physiquement quoi man daaw naa ko dégg parce que ñoo bokkandoo université bu ñu jógee. bi bi ñu ñëwee foofu en 2000 bon on a entendu ses traces li fa liggéey yooyu quoi. parce que d'après les informations même juma ji nekk foofu sax il fait partie des gens qui se sont battus ba mu am juma quoi étudiants yi daan ciy julli après benn jour dañoo daje par hasard ah si ba pare quoi ci bi tout ça mu jox ma numéro bon il a tenté de me joindre parce que numéro su la wooyee appel inconnu lay def quoi man su ma ko du ma ko mën a rejoindre mais par la suite ñu dem ba politiquement ñu daje mais occasion yi ma am toog di waxtaan ak moom yëpp mosoo ko dégg mu wax saa yi euh, prononcer des mots déplacés à l'endroit de Macky Sall à l'endroit de tous ses ministres c'est-à-dire que du du leen jamais cest que du leen jëw en fait quoi cest que mu wax leen lu bon man lool man ce qui m'a le plus marqué en lui doo ko mës a toog ngeen toog nii di waxtaan mu wax Macky Sall lu ñaaw wala wax que lu bon wala tout ça lépp lu mu am lu mu koy wax il le dit publiquement c'est ça aussi le courage de homme mooy quelqu'un qui exprime ce qu'il pense de son vis-à-vis publiquement. Et je pense que euh, cela montre aussi euh, une certaine grandeur de sa part en réalité. quoi. C'est quelqu'un qui est, comme je le dis, hein, moi, c'est ma, ma, conviction. Sa sincérité, peut-être, est, est, la mère de tous ses devoirs en réalité. Hein. Parce qu'on est dans un pays où on a inversé la pyramide des valeurs en réalité. lui, il n'est pas dans, ces, dans, ces, dans, dans, dans, cette logique en réalité. C'est pourquoi beaucoup de gens, parfois, ne partagent pas peut-être sa méthode de, faire tout ça. Mais en réalité, il est, c'est un homme de principe. Et tout récemment, lorsque je l'ai rencontré pour la dernière il me dit que moi, je suis dans les principes. Même si je perds, au moins, je suis fidèle à mes principes. Donc, c'est quelqu'un, pour conforter ce que vient de dire Maître Bamba Cissé, pour à ses soit, contre vent et marée, il reste toujours accroché à ses principes. Et le Sénégal, actuellement, a besoin de ces hommes comme ça. Je n'ai pas, je n'ai pas dit qu'il est le seul homme à avoir ou bien des convictions et des principes, mais le Sénégal a besoin de ces gens comme ça. Parce que euh, l'avenir du monde, ou bien les défis qui nous attendent, ont besoin quand même des leaders politiques et des hommes politiques qui ont des convictions en bandoulière. En bandoulière quoi. C'est ça que je voulais vraiment. Je voulais prendre C'est Le prétexte de notre venue ici, à Ziguinchor, c'est le procès donc pour la réintégration sur les listes électorales Ousmane Sonko. Nous aurions commis erreur de partir et de ne pas venir vous faire une visite de courtoisie. Donc on était venu dans le cadre du travail. Mais c'était normal une passion ici. vous saluer. Je ne ferai pas comme Babacar, comme euh, Bamba ou Siré qui connaissent Adissar que j'ai pu l'approcher et avoir une certaine amitié avec lui au-delà du rôle d'avocat que je joue auprès de lui. Moi, je dirais c'est à vous on doit dire merci. Le Seigneur a vu en lui des valeurs, des valeurs qui ont fait que le Sénégal et les Sénégalais l'ont adopté. Il n'a donné du miel du sucre à personne, mais les gens ont fini par l'aimer. Je dis, peut-être c'est le dernier venu sur la scène politique, mais c'est comme s'il a coiffé tout le monde au poteau. Hassan, c'est un homme sur qui Dieu a posé sa main. On a parlé de valeurs qu'il incarne, d'intégrité, de beaucoup de choses. À part Dieu, c'est vous qui l'avez façonné. C'est vous qui l'avez éduqué. Je dis à part Dieu, nous vous devons remerciement. C'est Dieu qui a créé Ousmane Sonko et les Sénégalais ont vu en lui une valeur sûre pour prendre les destinées de ce pays. Et ces valeurs sûres, par votre entreprise, ont été en lui placées. Et on vous dit merci maman, merci pour tout. Que le Seigneur réalise ce qu'il a entamé en lui. déjà la décision qui a été rendue hier participe et contribue à cela. On va continuer à prier. On a besoin de vos prières. Je sais que vous priez pour lui et pour nous. Et surtout que le combat va continuer. Et pour faire comme Bamba, l'État a annoncé son intention de se pourvoir. Je pense qu'ils seront suffisamment fair-play pour comprendre que Ousmane n'est pas un même s'il est dans l'arène politique. Et c'est légitime qu'il aspire au pouvoir, mais il est très détaché, comme Bambalaki, du pouvoir. Mais chacun peut prétendre à vouloir diriger ce pays. Ben, qu'on lui permette et qu'on lui donne la chance d'essayer. Et ce sera que bonheur pour le Sénégal, pour l'Afrique et le monde entier. Encore une fois, merci Que Dieu vous bénisse au bout. Moi, je, je souhaiterais, avec votre permission, ajouter un petit mot. C'est important parce qu'il y a des la vie, le mot de parler. Tout le monde Je vous remercier d'abord Bamba, Bamba Cité, notre notre fils, notre petit frère, notre, ami, qui a été l'instrument du destin. Parce si ce pas toi, je n'aurais pas la connaissance directe de Ousmane Sonko gannaaw yàlla Dieu est passé par toi c'est par la suite que j'ai d'abord découvert euh, une de ces jeunes sœurs Abi ñu bokk ndey on a habité ensemble comme voisin de palier avec euh, un couple d'enseignants elle était étudiante on parlait vieille enseignant jamais vu une femme une jeune aussi bien élevée aussi disponible nekk saykat de euh, la même un baptême où la famille est venue ce jour-là, guide de Tali. La famille a été reçue dans mon appartement, on a passé, on avait passé une journée mémorable. Mais je ne savais même pas qu'Agni a une Ma famille. Un jour, il a fallu qu'une nommée Betty. Betty vient après madame. C'est la tante maternelle, c'est la petite maman de Sonko qui est Betty a fait un témoignage parce qu'elle avait été dégoûtée euh, campagne de dénigrement dont était victime euh, Ousmane. Il a dit qui était Ousmane. J'ai découvert ce jour-là qu'on a un ancêtre Parce que <clears throat> chez nous, ce n'est pas une habitude de parler de nos liens de parenté. <clears throat> Chacun appartient à une famille. merci, du côté de ma mère, sa mère Elengom, ou Madame Kiengom, on, a, un lien de parenté parce que nous, on a la chance d'avoir un arbre généalogique. C'est ma qui est là. Euh, partage, euh, euh, le douzième roi du royaume du Baou. À l'époque, on les appelait les Teignes. Le douzième Teigne du Baou, parce que c'est à partir du 18e que les femmes sont venues au pouvoir, c'était euh, les Ngom, le deuxième et le treizième. C'est notre ancêtre commun, Papi Langar Ngom, euh, Papi Langar Ngom, nous euh, pouvons il a laissé des traces. Si vous faites des recherches, ça été le premier roi qui a posé des problèmes à l'impérialisme français à l'époque. Donc ce que dit Ousmane là, pourquoi comme histoire du Sénégal Vous juste là où commence le rond-point du Père, sur la gauche, vous avez le village de Salah qui est là-bas. foofu c'est la terre commune de nos ancêtres dem ñoo bokk rawaan mu nekk sama maam noonu la nekkee maamam ñu bokk waa Yoof nii euh, nous côté paternel on a nos liens à Tivaouane bien qu'on n'en parle pas c'est pas décent d'en parler l'actuel khalife général des Tidjanes euh, suma mbokk la parce que d'abord on est cousin côté yaayam côté tante bi papa ji ak yaay ji séparé sama tante la woon ñu takk sama bàjjen on a tellement de liens qui nous unissent et même pour le baptême de mes trois enfants c'est l'actuel khalife qui est venu à la clinique Casamance procéder à leur baptême donc on a donc des liens Ousmane lui-même il est transversal parce que Ousmane ku mu bokk kenn mënu la ko nettali donc c'est un homme qui est prédestiné tout ce qui se passe là ñoom ñoo sonn rek mais la vérité elle est têtue li ñuy wax euh, dë dëgg euh, bopp dafa dëgër bopp waaw dëgg dëgg dafa dëgër bopp c'est vrai en vérité da nga koy suul mu kiiwaat et parce que yàlla pare na son œuvre de création yàgg na donc donc c'est une raison supplémentaire de se battre pour un surtout qu'il décline toutes ses qualités en même temps qui sont pas une surprise bon Ousseynou Ngom j'en profite pour dire que Ousseynou Ngom notre confrère également mon neveu c'est comme ça qu'il a découvert le lien avec son jumeau, qui est le substitut du procureur qui a assisté à l'inculpation de Ousmane. Après l'inculpation, le mandat déposé dit à ça. Amna qui Amna qui Vous avez Il m'a dit, oui, Ousseinou m'a dit. Je dis, voilà, j'ai appris des gars de Sénégal, mieux pour faire. L'Union européenne, pour faire tout le monde peut Par discrétion, on garde beaucoup de silence sur les choses qui nous unissent, parce que ce qui nous unit par-dessus tout, c'est le Sénégal. C'est la cause qu'on défend, c'est le droit de l'homme. c'est l'avenir politique de ce gisee un homme politique bu ci def yërmande à ce point il ne peut pas ne pas apporter ta contribution fekk yàlla dogal ko yàlla moo dogal li yëpp mm-hmm. ñu sant yàlla euh, parce que c'est Dieu qui choisit les géniteurs et les génitrices yàlla bu la tànnalee mbokk yu baax surtout yaay yu baax mm-hmm. deseetu la dara rien du tout xel yi ñëw jàllee ma keroog sama kër mm-hmm. je voulais pas parce que ma femme a assisté à une a Euh, mu mu wan la film bi waaw donc film bi ça veut tout dire c'était la veille du décès de ma jour de mon anniversaire euh, ñu ngi waxtaan mu xëcc fii naka mu xëcc ko moi je savais pas qu'on me filmait parce que je pouvais plus supporter c'était le jour de mon anniversaire. Je savais qu'elle ne voulait partir ce jour-là parce que c'était mon anniversaire. Mhm. Mais le lendemain, le dem. Mhm. Mais elle a eu la force d'enlever mes bracelets, choses passées. Mhm. dugal ko ci loxoom. te loolu yëpp gis nga image yàlla xam na ni xaw ma dañuy filmé. léegi su ma jabar moom tous les derniers moments de la maman elle est gardée en image mu génnee bracelet Ousmane bi. dugal ko ci loxo. dugal ko ci loxoom seere ko seere boobu ndeysaan mënatul wax. Mm-hmm. dañuy ji parce mu doon mm-hmm. day wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin loolu rek doon wax. Mm-hmm. après merci merci merci merci la wax te yow duma merci merci merci ndaw la yàlla du kii. mais elle est partie c'est tout dire quoi. am na yaay am na maam lépp a ngi koy ñaanal Ousmane Dalla. loolu laa ko mos a wax. ñu bari lañ ko ko nëbb sax quoi qu'il soit tranquille mm-hmm. te toujours loolu lañ ko mos a santal yàlla ci mm-hmm. ñun le 3 mars 2021 quand on allait au tribunal mm-hmm. ndeysaan après Bamba Cissé ñëw ak avocat yi ñun dañuy toog oto bi gars yi jàpp toute la gaz toute la sécurité sonnal ñu toog ñu toog ci oto bi ce jour là ci laa doon am l'arbre généalogique moom lañ doon xool ci biir oto bi yi xamuñ sax lu xew ñun arbre lañ doon consulté xool avant je pense wax naa la ko fii lu ñu toogee ñu xool àdduna en certain moment on a vu la situation dans la rue tellement il était séduit di xool affaire yi mais quest qui se passe on ne ko jàmbale lenn mën naa la ko oto bii kenn du ko ubbi xanaa yow ñoo wàcc mais kenn du ko ubbi jot ñu wàcc ci la wàcc xam ni yàlla baax na mais pour vous dire que Ousmane dund ko téye nga xam ni su yebu rek bu la yàlla defee nga ànd ak moom nañ ci jàpp bu baax bul ko war bul ko xool bul jëw ak euh, du nit ordinaire waaw li yàlla def ci moom def na ko ba pare euh, te il faut ñi koy xeex yëpp xam nañu loolu contrairement à ce que xam nañ ko dañ ko ragal na mais dem nañu ba ñeme ko parce que boo nongee dogalu yàlla di nga nii xam ni kii c'est un instrument du destin comme yow ni nga nekkee instrument du destin c'est le moment ma gërëm la parce que képp kuy défendre doucement gannaaw yàlla yow yaa tax parce que yow yaa choisir son collectif waaw ça aussi tu es un garçon bien am na yàlla may fan bu gudd lépp yaram sutura Ousmane képp ku sutura na la wóor ni yàlla na la sutura ci suuf si ak sa njaboot man maa la ko lool parce que branco tubaab la mais ni ko gisee ñoom na nekk bàyyi fan tànk lañ la jot ëllëg waxu Ousmane da ko def dañ la wax kii lu ko jot est-ce que nit la waaw moom nag maire bi wax dara dana ñëw ba fii jébbalu ci yow parce que xam naa bëgg na la gis trop tubaab boobu ak ñeneen ak ñeneen. macha allah ngeen la section communale de que nous en sommes deux adjoints moi nous sommes les deux adjoints au niveau de la coordination communale. alors je prends la parole c'est pour vous remercier. vous les avocats du président Ousmane Sonko au nom de la section communale xeex bi le combat combat bi ñaar tànk la ci wàllu avocat wàllu yoon ak ci wàllu politique wàllu politique moom ñun nous avons juré sur le Saint Coran pour les musulmans sur tout autre livre sacré pour les autres religions que ñun dañu taxaw Ousmane Sonko incha allah ba nu atteindre suñu objectif wàllu boobu wax dëgg yàlla loolu suñu wàll la ñun te ñu ngi si suba ak ngoon guddi ak bëccëg mais ñun aussi suñu yaakaar yéen la wax dëgg yàlla di leen pour la grande victoire que vous nous avez apporté hier dëgg yàlla ku xoo ki connaît Ziguinchor dina sentir aujourd'hui c'est comme un jour nouveau air bu bees moo commencé daw Ziguinchor aujourd'hui hier jusqu'à deux heures du matin les gens étaient en liesse nit ñu kontaan te loolu du dara lu muy ginnaaw yàlla yéen ñu ko indil nous vous faisons confiance dëgg yàlla nous vous faisons confiance et nous sommes derrière vous wàllu boobu taxaw leen ci beneen wàll politique bi ñun ñu taxaw bu baax di leen wax ni kontaan nañ lool ci liggéey bi te nous sommes très satisfaits et confiants parce que ñu xam ne boo ko tey yàlla démb na leen may ngeen plaider te démb ngeen plaider am ngeen victoire boobu ba léegi ñu ngi daw ci ginnaaw gars yi di daw ci ginnaaw la ñuy soog a plaider démb. ñu plaider ngeen am victoire vraiment c'est pour témoigner cela au nom de tous les partis de Ziguinchor véritablement moo tax ma ne woon naa leen ko wax ci turu section communale bu Ziguinchor nous vous remercions nous vous encourageons et sur le plan politique travail politique moom bàyyi nañ suñu loxo insha allah fii Ziguinchor li passé ba Ousmane Sonko bëgg na si jot soobee yàlla merci beaucoup

ça peut être interprété positivement comme euh, une contribution pour, euh, pour la paix. Hmm. C'est une victoire certes pour Ousmane, pour les militants du PASTEF, et on peut dire aussi que c'est une victoire pour le Sénégal, puisque cette décision a été rendue au nom du peuple sénégalais. Et le peuple du Sénégal doit se retrouver uni autour de cette décision. C'est une contribution très précieuse pour le rétablissement de l'ordre républicain et l'ordre démocratique. Lorsqu'on parle de l'ordre démocratique, ça ne profite à aucun camp, ça profite euh, à tout le peuple dont la décision, au profit duquel la décision est rendue. Et au-delà du Sénégal, Moi, je reçois des appels qui viennent un peu depuis hier soir jusqu'à ce matin. Et je pense que tout l'Afrique est sénégalaise. Et ça, vient parce que euh, la justice sénégalaise hier est devenue une championne de la justice africaine. donc lorsqu'on est championnat, pour le continent. ce processus, cette dynamique doit être poursuivi, doit être soutenu. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a que des vainqueurs. Donc moi je vois les choses comme ça. Je suis personnellement très fier d'avoir avec mes éminents confrères euh, contribué à cela et même nos adversaires d'hier soir ont aussi contribué puisqu'ils nous ont enrichis. Ils nous ont apporté leurs contradictions, Et c'est dans la contradiction, effectivement, qu'on s'enrichit. Ils nous ont montré une façon de faire, qui va nous permettre de revoir aussi notre façon de faire. Mais il ne faut pas qu'ils voient la décision d'hier comme étant euh, échec pour eux. Et pour nous, ce une victoire pour nous, c'est une victoire pour tous les Sénégalais. Et puis, tout le... Donc, c'est une décision d'apaisement et de rapprochement que la prière du vendredi puisqu'on est appelé à la prière, que cet appel soit effectivement un signe positif pour le Sénégal et puis pour l'Afrique. On y va C'est bon.